salaamaaleykum sama kilifa yi ma fekk salaamaaleykum salaamaaleykum yéen journaliste yi tamit euh, man la Assane Diouf xam naa jataayu tey bi dafa am lu muy lu muy lu muy tekki parce que daana nekk Assane kese di toogal boppam wala Karim kese wala xam nga grand yi fi toog Clédor daam ku ci nekk di toogal sa bopp di wax mais tey dafa am lu dal ci kaw Sénégal loo xamante ni dal na suñu kaw ñun ñi ñëpp ñu seetaan ko xam nga dal na ci kaw xalifa Sall dal ci kaw Karim Wade ñu seetaan ko mu war a dal ci koo xamante ni bugguma tey sénégalais yi di ñu wax Pastef nañu wax usmaan Sonko doomu Sénégal comme man comme ñun ñi fi toog ñëpp journaliste yëpp man loolu moo tax ma teew fi ma bëgg jeunesse bu Sénégal nañu xam ne caaxaan jeex na nañu xam ne fecc jeex na ñu xam ne tàllal loxo jeex na xare moo fi des xare te nit bu fekkee ne yow da nga nekk ci réew réew moomu nga di ko ndamoo wala nga bëgg fa dara wala nga bëgg fa def dara da ngay fexe réew boobu am indépendance ba pare parce que bu amul indépendance yow doo am li nga bëgg parce que lépp loo mënti am tamit xam mën na xëy xam nga tàkk ci loxo buur te fi mu toll nii ñun buur la ñuy jëflanteel umpalewu leen ne man xam nga États-Unis laa nekkoon di séen lu bari xam nga di jooy parce que bi may yëkkati sama kàddu xam nga di di di di di di wax wax bu teggenewul dama gis ñoo xamante ni amuñu teggin ci ñun. bu ma fekkoon Abdou Diouf wala Senghor wala Papa Abdoulaye Wade sama baat du mel noonu mais dañ fi fekk koo xamante ni bi mu ñëwee rek daf ne kilifa diine yëpp. xam nga ay citoyen ordinaire lañ xam nga daal ne opposition bi duñu dara dinaa fexe ba fay leen ñoom ñëpp xam nga te loolu mooy liggéeyam ma bëgg nag xam nga liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey fépp fu jeune nekk ci Sénégal soit yaa ngi dawal Jakarta soit yaa ngi dawal Super soit yaa ngi dawal Sotrac wala yaa ngi dawal car rapide lu mu mënti doon wala nga yor bitik xolal heure tëj ak taxaw dafa jot parce que buñ ko deful léegi nii xam nga bu ñu koy def dina fekk mu trop tard xam nga moo tax ñu war a taxaw léegi pour Sénégal taxaw pour suñu frère Ousmane Sonko taxaw pour suñu deret sax laay wax. xam nga man pare naa pour joxe sama bakkan parce que li tax ma pare pour joxe sama bakkan bërki démboo njaay ci kaso bi laa nekkoon te liñ ma waxal yëpp dara nekku ci xam nga jaar na ci Karim jaar na ci Clédor jaar na ci ñu bari fii biir Sénégal bu ñu bàyyee nag yu mel noonu di continuer mooy xoolal ci suñu kaw la jëm si. te balaa ñoo egg fii ñu jëm xam nga ñun nañu jóg gàttandu li nga xamante ni moo war a dox jëm ci ñun. parce que bu bis bu egsee suñu kaw dina metti trop amul journaliste amul kenn kuy taxawaalu biir Sénégal koo xamante ni yow doo mën mën nga taxaw ne man duma ma sénégalais xam nga léegi loolu moo waral xeex bii ñuy xeex nii sama gars yi bu leen seetaan bu leen seetaan commencé ko ci yéen ñi nekk ci salle bi. xam nga lépp luy information génne leen ko lépp luy information wëri leen ko fi aji Sarr dëkk ñun ñëpp xam nañ ko yee heure bi waroon na fekk ay caméra ñu jël ay information fépp foo xamante ni fa la Adji Sarr dëkk parce que Ousmane Sonko sénégalais yëpp xam nañ ko ba pare te munuñu xëy ñu tegal ñu benn manipulation boo xamante ni ñun ñëpp dañuy toog rek ku nekk toog ci sa Facebook wala nga toog xam nga sa ruq naan non lii mën na nekk non passé nañu ay commentaire ci xare la ñu nekk nañu jóg ñun ñëpp pour xare xam nga Macky Sall moomul Sénégal xam nga te man li nga xamante ni moom laa mën a séq ak moom mooy xare man mënuma ko may dara barke yonent bi xam nga dinaa am nag loo xamante ni toujours dinaa ko may sénégalais yi comme ni ma leen ko waxee parce que jàmbat bi dégg naa ko Assane waxal li ngay wax mais bul saaga mais ñii ñuy jëflanteel ku leen saagawul tamit di nga wuti yat mbaa nga wuti jaasi xam nga te balaa ñoo egg foofu kon xam nga li yonent yàlla Muhammad mu waxoon lépp loo xamante ni mën nga ko faj ak sa làmmiñ ak noo ko mën a fajee faj ko balaa ngay jëli ngàndaay xam nga man foofu laa tolloon parce que xam nga saaga yàkkamtee xeex la te man damaa yàkkamtee xeex Macky sàll jàkkaarlook moom rek laa bëgg barki seen Touba te dafa jot. xam nga kon préparer leen ko. xam ne ñun ñooy Sénégal xam nga bu ñu bàyyi dara bu ñu bàyyi dara léegi nag bu demee ci côté police yéen administration bu Sénégal benn seen salaire yi. Macky Sall nekk fi day continuer Macky Sall ñàkk fi nekk day continuer xam nga bàyyi leen loolu xel seen éducation yi ngeen topp ba egsi fii ngeen egsi ak waat yi ngeen waat bàyyi leen ko xel bàyyi ne ku ci nekk am nga njaboot te booy xëy di dem di doxi ci santaane Macky Sall xam nga dangay bàyyi sa njaboot ginnaaw te sénégalais yi xam nañu la nañu bàyyi loolu xel te fi mu toll nii àdduna bi xolal lépp a xarañ lépp a xarañ xale bu ndaw bii doog a judd sax yàlla jox na ko xarañte boo xamante ni joxu ko ñu dugg ci judd ci année quatre-vingt-dix-neuf yi kon xam nga xeex baa ngi noonu xam nga man bàyyiwuma dara man moom du ma bàyyi dara xam nga parce que ki ñuy jàkkaar lool mayuñu dara respecté wuñu respecté wul suñuy kilifa respecté wul kenn ku yeewoo Sénégal kon nañ leen taxaw xam nga ànd xare xam nga wasalaam loolu moo moo doon waxtaan bi dégg ngeen ah jaa ngeen jëf